agriculture maanaam e mu moom bàyyiwul dara moomeelu réew mi la établissement Touba Darou Rahmane yéen doomi réew mi yéen ngeen jëf mbokk internet yi ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare te ñu ñëw fa seen waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy li am démb ci arène nationale ah ñu koy naqarlu du ñu jóg ci di naqarlu yaakaar naa ne dictature bi bari na torop torop torop torop ci réew mi ah démb nga gis bu géwoon nga xamante ne moom moo di arène national ñu dàq ko ndax ay critiques yoo xamante ne def na ko jëmale ko ci ki nga xam wala boog jëmale ci ko ci kuréel gi nga xamante ne moom mooy waa CNG ñu dénk leen làmb ji loolu tax ñu ne du dugg ci làmb samedi wax nañ ni wër nañ ko foofu fekk ñu ko fa dimanche ñu wëraat ko fa mu ñëw ñu ne ko doo dugg ci làmb ji ñu koy naqaru tax ñu fas yéene waxtaan ak ak ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ay confrère bokk ak moom làmb ji fekk ko ci làmb ji yaakaar moom mooy premier reporter boo xamante ne ci wàllum site internet kuy yëngatu ci làmb di def làmb raxu koog dara waaye nag ma seq waxtaan bi ki nga xam ne moom mooy Baye Balla Mbuub vice président yow lan nga sax ci kuréel bi. man membre simple di wax lu baax ak membre simple. borom social Babacar porte parole ak Monde Ande sans frontière nga damay commencé waxtaan bi ci yow nuyu la bàyyi la nga nuyu mbokk internet bi. waaw Lamine maa ngi lay fay di nuyu ami internet yu Lutte TV yëpp ah di nuyu réew mi di nuyu bitim réew à travers di ñaan ci réew mi jàmm yal na yàlla def jàmm ci réew mi ci barke yonent yàlla Muhammad laa ah, laa jàpp Abdou Aziz daan ñaan ne woon na nañu tàppe xol yi te ñaan yàlla suñu borom mi dara teewul gaal gi mucc ndax bu gaal gi muccee mhm. suñuy ëmb danañu mucc danañu mucc mhm. kon yal na yàlla def jàmm ci biir réew mi directement ci li nga xamante ne moom mooy xew-xew bi mhm. buur géwal ñëw làmb démb ñëpp dégg nañ ko ñu génnee ko ci làmb ji te yaakaar naa ni nee nañ buñ ci teelul a jóg mën na laa dal suba mën na dal Modou Anta comme mën na ma dal te yaakaar naa ne amul fenn foo xamante ne CNG teg na ko fa ba war a mën a dàq benn reporter ci làmb ji bu nga déggee information bi ban gis-gis nga ci am. non dama am lu ma naqari mooy li ma wax rek quoi xam nga injustice léegi dafa bëri ci ci dëkk bi ci lépp nag ci koor yëpp nag. Mhm. comprendre nga man leen man tardivement laa yëg ni Bour Gueweul dañ ko jël yëg génne ko làmb ji parce que man. su doon ne ci sama kanam la xewee. Hmm. non buur du génn làmb ji wala ñun ñaar ñëpp lañuy boole génn ci biti. parce que il faut reporter yi benn ñu solidaire ci seen biir d'abord di yëkkati wandoo di tegandoo parce que yenn kati dañuy yëgoo comprendre nga léegi reporter yi ki nga xamante ni sax bu feeñee ci làmb mbër bu feeñ ci làmb promoteur bu feeñ ci làmb. tey bu ñu demee ba Bira Bira Sène ñu xam ko ñu xam ko mais presque en ligne bi ñoo ko wane ah. Mhm. keroog bi nu toogee ak ministre Matar Ba fii ci biir arène nationale ñu di ko nemee presse en ligne bi ñoo fa woon fees fa dell ñoo ko wane. Mhm. su bëggee Moussa bëgg a def déclaration presse en ligne bi lay lay lay lay lay woo. Mhm. kon il faut rendre à César ce qui appartient à César c'est très important nit ki danga koy jox li mu moom jox ko li mu yelloo wàññiwul dara. li ma ci gën a naqari mooy làmb ji yow moomoo ko bay génne ah, làmb ji moomoo ko bay génne. bay génne buur géwël làmb ji buur géwël presse en ligne la yor bokk mooy buur géwël mooy mooy reporter bi nga xamante ni moo njëkk ti micro ci presse en ligne nekkoon Sénégal. di ci liggéey liggéey bu am solo. Mhm. ba tey fii mu si nii tey kon kooku da ko war a jox wàccuwaayam. Bour Gueweul dafa ñëw ci làmb ji pour chercher de l'information pour jox ko askan wi jox ko sénégalais yi parce que sénégalais yi dañ ko yittewoo. Mhm. parce que làmb la suñu culture la. làmb suñu sport national la. Mhm. comprendre nga yow tëggoo journée journée bi moom moo ko journée bi si di jaxatee ko tëgg. waaw nekkul CNG de lutte bi. déedéet ñoom nga ñoo tëgg les mer ñoom ñoo tëgg ñoo am seen journée. ah. les mercredi lañ tëggoon. tëggaat ko ñaari yoon perte bàyyi. mais bu fekkonte ni ñoom ñoo tëgg combat buy démb bés boobu noonu bu ñu génnee buur géwël làmb ji ñun suñu yoon du ci ne parce que dañuy xam ni ñoom ñoo tëgg seen làmb ñoo jël seen million def ko ci seen làmb mais Siri Jaxate moo tëgg làmbam woo presse en ligne bi ne leen kaa ñu liggéey ñu ñëw buur géwël ñëw nga ne da koy génne lan moo tax nga koy génne parce que dafa toog ci benn plateau télévision wax la loo xamante ni arrangé wu la yow mais critique ci réew mi lañ ko fekk mais man pour man nit ki da nga war a nangu sax critique parce que critique am na lu bëri loo xamante ni war nga ko ci mën a jàng mais critique dafa am solo ci dundu doomu adama dina tax nga defaraat sa toogaay dina tax nga xam say défo xam li nga war a defar comprendre nga mais danu juum CNG de lutte bi tey jii bu ñu defee loolu ñëpp ci kaw Bira Sène la ñuy daal parce que il est le président de de CNG comprendre nga. mais ki ko génne dana ko Bira mu wax loolu. waaw ki ko génne loolu la ko wax Bira moo ko génne nee na. ki ko génne moo ko jox ordre. Hmm. maa ngi profité di nuyu tamit père Thiam quoi père Thiam. waaw per Thiam sunu per la sunu papa la kooku sunu xaritu papa la di nit ku baax ku nu fonk comprendre nga mais nag xulul xaq wala kaanam mu ran donte dañu lay rey nga wax dëgg te yàlla tax wàññiwul dara seen jeu de lutte bi moomu ñu làmb ba lu leen neex ñu def ko maanaam dañu respecté wul doomu aadama des fois da ngay ñëw sax ci làmb wallaahi azim yow ñu xam la ci làmb xam ni yow. da nga ci liggéey lu wér. Mhm. mais dañ lay xool en la rek. teel ko ñala ci porte yeeg yooyu. waaw nga nekk foofu di mhm. loolu bokkul ci liy doxal làmb. Mhm. comprendre nga bi ci des mooy nañu xoolaat bu baax a baax li def ñun nag. association des reporters Bour Guéweul ku ne xam na ni moom mooy président bi man je suis le vice président président comprendre nga moo tax ku laal Bour Guéweul dañu laal tey jii CNG de lutte bi boo jugoon wax Bira Sène dara wala nga laal Bira Sène ñoom ñëppay jóg dal ci kaw ki ko wax comprend nga parce que danoo déggoo seen biir li nga leen di gis noonu maas bu doy waar la ñu def déggoo seen biir léegi reporter yi dafa jot ngir ñu déggoo ngir ñu jàppoo parce que lii ñu def buur géwal tey bu subaa mën nañ ko def keneen ak keneen de parce que nanguwoo critique Alioune Sarr la mu dégg Bira Sène du ko dégg. déedéet li mu dégg. man déggoo man la sànq wax naa la ko drapeau chef de l'État Alioune Sarr ñëw na euh, Stade Caroline Faye bu mbuur mais keroog keroog benn booy lañ fa indi woon booy bu nekkoon équipe nationale bu nan kase. ñu ne ah, kase kase bu Mbour ko pousse ci mm-hmm. mais bu mu dugg see amateur yi ñëpp a ko doon yuuxoo. moom Alioune Sarr. waaw te teewul xoolal nit ku dal la te bi ñu ko dékkee micro yi dafa tontu normalement te dépassé wul les borom ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. léegi mais yow la moo tax tey nga ñëw Bira Sène benn reporter bu toog ci plateau télévision. Mm-hmm. wax li mu gis wax gis-gisam. ci seen doxalin bi ci mm-hmm. seen doxalin. Mm-hmm. ngeen ni loolu neexulee mu ñëw ci làmb ngeen génn ko loolu moom vraiment c'est à déplorer loolu du lu rafetlu loolu neexul ci xol man xoola daf ma naqari xam nga tax mu naqari ma ah man man dama part personnel man mënumaa gis ñuy bunduxatal nit quoi. di toroxal ci lu dul yoon. ci lu dul yoon. xam nga ma la di toroxal nit nit même bu defee lu dul yoon sax war a ko toroxal devant tout le monde comprendre nga ngeen jagat jagate ko stade bi yëpp xam ne kii tey dañ koy génne toroxal ko bu dul dara xoolal ci ay soxnaam bu dul dara xoolal ci ay njabootam ay doomam ñoom ñëpp dañuy toog di seetaan télé bi xam nga nit ki danga koy respecté nga jox nit ki akkam ak yelleefam ñëwul dara tey Bira Sène nu mu mën a mel presse en ligne bi moo def. et tant d'autres te li naqari reporter tey moo naqari ñu bari. chaque jour nga gis mbër mu génn kaas am lu ko naqari ci CNG. bi mhm. ak leneen ak leneen. Mhm. te yooyu yëpp ba léegi saafara du ci am. Mhm. tàngoor du ci am. mais lan mooy problème bi lan mooy big deal bi nañu respecté waat gaa yi quoi xam ni làmb génn ci reporter làmb génn ci mbëru làmb génn ci promoteur nga xool ndax làmb dootina dem dootul dem dootul dégg CNG de bi. kon nañu respecté ñi nga xamante ni ñoo nekk ci làmb ji di ci liggéey liggéey bu rafet. macha allah loolu am na solo joxal ma kàddu gi moo daan toogal <laughs> moo daan nañ la. Lamine maa lay nuyu bu baax di la siyaar di la jox sa wàccuwaay bu baax damay ñëw ci waxtaan bi rek. Mhm. waaye tamit di nuyu gaa yëpp. di nuyu su ma waa dëkk waa Lambaay Bawol di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax parce que nit amul lu dul fa mu dëkk. di nuyu waa Saalum tamit. fa nekkoon daara ak fi ma dëkk. bul bàyyi <laughs> di fawee temps aywa demal jox sa wàccuwaay bu ah. baax a baax Lamine ah. li ma ci waxoon tey buntu arène nationale rek laa ciy waxaat buur sax dafa baax naan affaire bi nañ ko defee Grand Yoff nañ ko defee CNG bi fa mu xewee nañ ko fa defee gis nga làmb dina toll foo xamante bi nii lii Ousmane ko naan gat sa gat sa day baax ci làmb parce que tamit noo sii parce que mbir day toll foo xamante bi nii defante moo koy dindi boo defantewut li nga bëgg doo ko am am na ci yenn tet yoo xamante bi nii si làmb faw nga am foo jaar ak moom bu ko defee cër mën a dox seen diggante mhm. am na si ñu bëri xam nañ li may wax am na ci ñu ñuy napp leen buntu xadaal wala ñu leen di jaay doole wala ñu leen di jéem a humilier ci seen ay biir moroom waaye ban ka leen koy def ban jàppante jàppanteek ñoom ñu am benn tàkkusaan boo xam ne ñëpp dégg nañ leen wala ñu meroo ci benn un mois waxante kenn ku nekk gedd sa yëfi moroom ban juboo yaakaar naa ne liggéey ba sell na lool kenn ku nekk di nga xalaataat sa moroom bala nga koo cokkaasaat fa ngeen jaaroon ba yegg si fii kon yaakaar naa ne loolu jar naa bàyyi xel bu baax a baax a baax gis nga affaire bee ne am démb yàlla xam na ne bu ma doon buur géwél damay bañ bu ma bañee ba tëdd ci suuf presse en ligne bi yëpp dina ñëw ànd ak yow ci bañ bañ la la mm-hmm. parce que affaire bi toll na foo xamante bi ni Lamine gis nga ñun dañu bokk si làmb kenn mënuñu see génne gis nga làmb ju amul reporter mi ngi mel ni caay bu amul ñor dox ba rafet hmm. non si na wax ji leer làmb ji amul reporter mi ngi mel ne caay ju amul ñoor rek dox ba du rafet te foo wane ginnaaw musibaam hmm. comprendre nga nañ joxaat nit ñi seen cër ak seen àq ak yelleefu doomu aadama dafa baax lool lool ci nit ki Bira Sène ñun ñoo ko dalal ci làmb te buy dem fi la ñuy bàyyi li ñu desee ci làmb desewu la yow suñu papa Bira yow ñun carrière bi ñu desee ci biir làmb ñu fiy nekk di continuer di liggéey desewu la si biir làmb pour nga war fee nekk di continuer di liggéey te yaakaar naa ba nga fi ñëwee ba léegi liggéey bi mi ngi nice dan la doon bàkke na la yow yaa gën a ouvert tëjuloo say pot kenn da ngay dégganteek ñëpp man ba ma déggee loolu dama ko tànte ne est-ce que dëgg la woo la téléphone nga wuyu ma ma ne ah kon gars yi liñ doon wax dëgg la mais tey lu président Alioune Sarr musul def te gars yi dañ doon wax ne moo gën a sadik mooy docteur bi gars yi dañ koo ragal ñemewuñu ko Gris Bordeaux laay commencé ba ci suuf ñëpp kenn ku nekk boo amee sa doli euh, sa dolliance nga taxaw wax ko ko boo amee ak réeroo ñàkk a gisante ñàkk ñàkk déggante nga ñëw wax ko te Alioune Sarr la ci mere te yow biraa ñu wax loolu nga bëgguñu see mere wala burgéwal wax loolu nga bëgg ko see mere ba tey mu ñëw ci làmb joo xamante bi nii àdduna bi yëpp a koy seetaan mhm. télévision yëpp a koy wone ñu pamti pamtee ko ci koo xamante bi nii am na soxna am ay doom kilifa organe de presse kilifa la ñu woolu ko ca kaw ba mu ñëw ngeen wër ko ndomba mel ni ku def ñaaw teef mel ni ku def lu bon mel ni ku sàcc wala ku agressé te xamul loolu boole ko ay police ñu génn ko ca biti mais loolu toroxal nit la dafa ñaaw bu doon man la sama bakkan laa ciy teg fu mu yem neex parce que Lamine coow li bari na mais kenn ku nekk xam nga say droit kenn ku nekk xam nga li la yoon may mm-hmm. buur géwél sax waruñu koo convoqué CNG muy wuyu ji mm-hmm. xam nga lan moo tax mbër bi nga xamante bi nii licence la yor dara la convoqué force da ngay dem ménagère bi bu la convoqué force da ngay dem keneen ak keneen koo xamante ne dara lie na la ak CNG maanaam yor nga licence bi papier bi buñ la convoqué da ngay dem est-ce ñoom seen article yooyu ñu yor gis nga ci article boo xamante bi ni dañ ko def pour bu presse en ligne jàddee yoon bu defee nii lii ak lii moo ko ciy fekk man gisuma ko bu dee am na nañ ñu ko génneel jamonoy Alioune Sarr moo gën a na pire fuuf li ko gars yi daan wax mu koy dégg ay mbokkam di ko dégg Bira Sène déggul lu toll ni tar fatal ay ni ba lu toll ni catu we bii nii deedeelu we déggagoo ko te am na droit nag wax ci yow de nin amee droit wax ci Balla Gaye ak Modou ndax ñoo dagg licence ñun ñu nekk ci làmb di leen wone devant le publique tout le monde ñëpp di leen seetaan ni ñu amee droit wax ci ñoom di leen critiquer ñu koy nangu nekk ay champion nekk ay sportif noonu lañ amee droit bu ñu gisee lu ñu neexu ci CNG bi ñu wax ko parce que wuute gis-gis moo waral marchandise di jar. Mhm. Lamine nañ bàyyi caaxaan yi. Mhm. te bàyyi presse en ligne bi boo bëggee siiw boo bëggee jag boo bëggee def conférence de presse. boo bëggee ñëpp dégg la nga neexal presse bi ñu ñëw. Mhm. boo leen utiliser ba pare nga sànni leen comme morceau fubarikaay. du dëgg du yoon. nekk leen ay nit muy man di sama morom ak kum man di doon surtout président CNG bi loo nekk nit nit gën koo nekk parce que nag bippe nga ñu am crédit papa walaay du ñu xam nga lan moo tax du ñu bàyyi. ki nga laal day kenn si ñun ki nga laal dañoo yàgg représenté fu nekk ki nga laal dañu daa xeexal ay accréditation fu nekk benn affaire am na bitigee bi nekk sa koñ boo yoree sa xaalis dem na ko jaay ma mu bañ pelent ko buy dem police ñu koy téye dañ ko faa teg pour mu liggéey loolu ci say droit la bokk ki nga xamante bi ni moom moom làmbam boo ñëwee mu ne la doo dugg ci làmb ji moom moom image su làmb ja mais moomul stade bi da ngay dagg sa billet nga dugg toog sañu laa génne làmb ja mm-hmm. parce que moo woote nit ñi wuy si ko yow nag tëggoo làmb frais de organisation la promoteur bi andi. da ngaa re dañoo ñëw régulariser. <laughs> dañoo ñëw andi la reliquat dañoo ñëw indi la leneen ak leneen jox la pour nga organiser làmb ji jël say règlement teg boo jaaree yoon lii moo la ciy fekk boo defee lii lii moo la ciy fekk loolu mbër yi la concerné ménagères yi la concerné ak promoteur bi supporters yi sax concerné wu leen moo waral yàq sees gi amul kenn kuñ fa mën a convoqué kon nag. jot na comme maanaam dangeen ngeen di bàyyi ba dara am. ba mhm. dara këtt na jonu ñu jël bu bees kon ñun ci ñun bu fekkee ne mën ngeen cee créer règlement bu bees créer leen ci ñun règlement bu bees. ba ku ci wàcc yoon yoon dal la mais nii ngeen ko defee. ñaaw na bul ko tuddee wàcc yoon parce que wàccul yoon. non nii ñu ko defee. Hmm. dafa ñaaw te rafetlu wuñu ko. parce que avant loolu buur ba mu ko waxee ngeen dencal ko ko parce que dama gis ne dencal la li tax dencal la danga ñëw bàyyi la ba nga dugg man dajee naa ak buur man naa koy waay papa waay di reetaan noonu ma dégg ma dem jëli saa Thiès dëpp ñu ne ma buur génne nañ ko làmb ci mais kon dañ ko complot dañ ko préparé bàyyi ko ba mu ñëw ñu gasal ko ndëgg sërëx woo ko ca kaw patam patamee ko wàcc ko làmb ja génn mais bu ñu ko defee noonu après ñu gaañ ko nag fan lay mujj est que du ngeen si am problème mais li faute la Alioune moo gën a na am audace liggéey bu sell la fi liggéey liggéey bu mucc ay ba jóge fi te xuloowut xeexut te pourtant amoon na lu ko metti Lamine li ñu xam ci làmb ji bari na de. te waxuñu lépp de. kon tegal sa baaram foofu. bu ñu yee nag. jërëjëf bul yeewoo. jërëjëf Lamine maa ngi nuyu waa Lutte TV yëpp di rafetlu plateau bi ak ñi jot jël ay kàddu yëpp même kàddu bi rek continue lay doon ku jël rek fi sa morom daana léegi fa ngay sof mais mbetteel bi ñu ci am rek mooy que ni CNG bees bi ñu ñëwee dañ seen premier partenaire mooy presse en ligne bi. Mhm. te loolu yaa ngi fi. Mhm. kon yaakaar naa ne fàtte xaju fi. Mhm. nit nag melul ni mu waxee ni mu jëfee la mel. Mm-hmm. ndax sam papa daf naa ma nit su waxee jàppal bu jëfee gëmal. waaw. kon sama premier partenaire mooy presse en ligne ñu gis tam buur Gueweul di icône ci làmp nga def ko nii kon ñun war nañoo tiit te wax dëgg yàlla nag Bour Gueweul méritoowul li mu ko def démb man démb suñu ñaari oto yi ñoo bombante bi may génn bi may dugg lay génn bi may dugg maa ngi koy klaxonné xawma li xew. ndax damaa ñëw tardivement ma ne ko mais boobu énervé na yéeg na parce que leneen boo ko defee as gor mu yëg boppam. bi ma duggee ba toog ci leen ma ne buur géwal dañ ko patam patamee génne ko làmb ci ma ne ana ki def loolu ñu ne ma cuun la ci saa si damaa dem ci commanda cuun ne ko commanda nuyu ko ne ko li nga def noo ko mënee lu ñu wax yaa ko def yaa ko def muy di diital mu ne ko non damaa bëgg nga wax ma lu leer mu ne ma waaw maa ko def damaa jox ndigal jóge ca kaw. ma ne ko foo jotee ndigal li mu ne ma président moo ma ko wax ma ne ko baax na di ci nuyu itam Abdou Aziz Gueye responsable Abdou Aziz nit ku nit ku nit nit kilifa la fonkaat naa ko démb mhm. Abdou Aziz bu ma ñëwee wax ko loolu démb jéli mi mën na maa seede fa la mu fekk ak yow la mhm. bi ma ko waxee daf ne ma kan ak ki def loolu ma ne ko cuun nee ne président moo jot ndigal li pour génne ko mu ne est-ce que président am na am na audace su génne nit ci làmb mhm. daan ma nan dem ci cuun yëkkat téléphone am woo commanda Thioune ne ko foo nekk bàyyi li ngay def nga ñëw commanda Thioune tàll ko loxo mu fekk ko fa maag ji li ñu fekk ko fa bin ñëwee commanda Thioune def ko ni mun maax dara ci kanam ñi may nan waxtaan maa yow ñu daal ñu daal puus wax mais boo xoolee Abdou Aziz ni muy moom da xam ne àndul ci xew mm-hmm. Abdou Aziz ne ma am na réunion man dinaa ko béral ba nu xam ne lii teguñu ko fenn mm-hmm. ne ma demal dinañ ko lijjanti mm-hmm. ma ko ci gërëm ma Abdou Aziz parce que li mu def bu ko neexoon bañ ko cee def mais li may wax rek mooy que ni yéen yéen ko xëddéem dañuy yëgoo ndax buur géwél te am na lu mu indil Sidi Diakhaté parce que image Sidi Diakhaté bi mu génn relancé ko am na lu mu defal Sidi Diakhaté am na lu mu ko mhm. te pourtant Sidi Diakhaté fayu ko peut-être ji buur géwél gañe na ci mais am na lu mu ci war buur Sidi Diakhaté gañe tam kon ku yokkul da ngaa wàjji nanuy xool yu rafet di ko def te bàyyi lu ñaaw amul njëriñ mhm. journée bi jeex na tey te li ngeen jox moo ci am solo bu doon CNG moo tëgg ko journée boobu bu ko neexee mu ne buur géwél bul fi dugg am na ci droit mais tëggul nit nag loo da ngay xam ne lii moom ma ko mhm. nañu gën a dalal xel te xam ne àdduna yàggul te làmb ji fi leen koy bàyyi mhm. coono bañ ciy daj moo boo xoolee keroog bi ñuy dem jonwaar ci mhm. risque yi ñu def ak engagement yi ci borom njaboot mais loolu bëgg làmb moo ko waral mais bi ñuy dem kenn fayuñu pourtant xaaju ko ci leen jóge jonwaar ñëw ci ba ci diggee ji maag ba ay Babacar gaal gi di fay kon <laughs> coono boobu ñu daj ci làmb nañ ñu xam ne ñun dañoo yokk làmb mais wàññiwun làmb te nag promoteur bu ne nag bëgg nga boo taxawalee bis presse en ligne bi liggéey ci li mu ci war a liggéey. Mhm. parce que waxatul léegi télévision yi presse en ligne la wax. kon yàlla bu indee ak dogalam nañ ko nangu. Mhm. ñu ngi ñuy xeex nag waaye nag sunu boroom moo ñu nàkkal bañ bañ bëgg. et télévision yi sax ci ñun la ñaan image pour teg kon loolu suñu borom a ko indi te bu yàggee ba yàgg presse en ligne mën na fee jóge leneen ñëw fi mais comme suñ waaye wala sama ñun la suñu borom teg ñu ñuy fësal di biral li nga xam ne moom mooy xew te loolu moo arrangé promoteur yi nan bàyyi xel pourcentage bi te xam ne ku yokkul da ngaa wàññi. jërëjëf doxal bu Babacar lu mu ci yokk. waaw Mamadou Lamine maa ngi lay ziar bu baax baax baax di nuyu ñëpp ñi seetaan actuellement nii ah di ñaanal ñëpp jàmbat di ko sàkku si ñëpp. defe naa ne nag wax ji moom liñ naan wenn sànn la rek wax ji démb la ah am maanaa li am tey bañ ciy wax démb la. yàlla dogal mu am démb la xew. si ki xewee nag suñu mag la. suñu royukaay la si li ñuy def parce que li jaraw fàttali mooy Bourguel defe naa ne Sénégal man si lu ma xam mooy reporter ci presse ligne bu njëkk wàcc sur le terrain def làmb mhm. yaa ngi dégg ak Sénégal nekk koo xam ne yàlla may ko fasa may ko kàddu mu mu am benn innovation bu mu ci indi yaa ngi dégg defe naa bi ñuy doog lit TV ñun di fa liggéey man ma fay doog a ñëw daan naa gis des fois bés di collaborer ak moom di waxtaan ak moom ci yu ci yu bare bare bari mhm. ça veut que am na lu nga xam ne nii apporté na ko. Mm-hmm. te lu mu apporté defe naa ne tey moo ko indi fii mu nekk. Mm-hmm. liggéey gis nga lamin boo nekkee fen di fa liggéey soo fa deful différence kenn du la soxla. Mm-hmm. pour géwél dafa nekk Sénégal di fa def différence. ba waa Dakaractu gis ko soxla ko. yeneen gis ko soxla ko. mu mu nekk sensu Dakaractu mu dem fa. te ba mu nekkee Dakaractu tamit marqué na fa empreinte am ci wàllu làmb. tey defe naa ne ba mu ba mu poussé ko asaka tey mu keree sax lu nga xam ne ni lu mel ni Dakaractu lu mel ni Sénégal la muy di fay ay nit. kon buur defe naa li mu def li muy li mu li métier bi mu nekk euh, nekku ci maanaam euh, joué wu ci second rôle. Mm-hmm. quelqu'un la ci. Mm-hmm. loolu respect war na tax. loolu maanaam liggéey boobu rek war na tax ñu jox la cër quoi. Mm-hmm. ñun nag nekkuñu fi tey pour man bokk man Babacar personnellement te loolu moo dal ñëpp man du ma farfarloo man naa far nag mais du ma farfarloo parce que farfarloo mooy nit ki nekkul ci dëgg nga ànd ci ak moom man du ma doxe noonu. mën naa far ak yow su ma far ak yow Lamine boo nekkul ci dëgg dama naan ah Lamine. Mhm. tey théâtre ñu waxtaanee ko nga xam ne théâtre. parce que mhm. nit ku amul. Mhm. yaa ngi dégg buur géwél nag li ñu ko def dem dañoo jàpp ne dañ ko tooñ te effectivement noonu la demee. parce que le promoteur moom mooy personne morale bi nga xam ne moom moo amee production moom moo tëgg événement bi moo ko amal. mooy joxe accréditation. mooy joxe accréditation CNC nag moom mooy comité bi ministère des sports. tànn ne nekkoon saytul ma làmb ji CNG du fédération comité la encore une fois. Mhm. dañ leen fii tegandi woon sax lañ waxoon naa ci ñun li ñu xam ci li ñu jiitu wala li ñu mag tegandi Alioune Sarr yore ko ay at at mu jot maanaam wala saa yu ñu ko woowee pour euh, pour kii ko maanaam wala moom saa yu bëggee bàyyi ministère ba mu tombeel ne ko non continuer mandat bi parce que li tax mooy liggéey bi mu doon liggéey la ministère yooyu doyloo woon. ñuy dem ba defe naan dernier moment yi defe naa Alioune Sarr lu mu jotul ci ay xeer amul am na bés boo xam ne dajan nañu man ak yow moom ministère mm-hmm. mu nañu sama ennemi yi mm-hmm. maanaam wax nañu jàppoon na ne boobu Lutte TV xëy na da koy xeex mm-hmm. te demewul noonu mais nag waxuñu ko ci manque de respect parce que moom nit bu responsable la encore une fois foo na ba wax ñu ko daal foo na daal ba wax ñu ko li olof naan dàq ginaar wax sa soxla def na ko keroog yaa ngi dégg Bira Sène mi tamit man Babacar du ma ne kenn yàlla ngi lay ko ci li ma xam ci moom ci bi mu fi ñëwee ba tey nit ku ouvert la mais nag comme groupe lañu des fois nag nga dugg ñu dugal la ci ay mbir yoo xam ne nii des fois yow mi jiite sax boo deful ndànk mën ngaa jël décision boo xam ne boo ko defee mu fakkasal la te loolu moo am parce que Birame man seetlu naa ci moom nekk nit ku ku dal la ku yaru la man loolu gis naa ko ci moom damay wax dëgg te yàlla tax parce que su ma bàmmeel laa taxaw te kenn joxuma lekk du caaxaan jafe dëgg des waaye nag dem def nañ benn mbir mu nga xam ne nii dañoo commettre erreur bu nganda nganda ngan buur géwél ki ko waroon génne ci làmb ji kenn la mooy le promoteur suñu père si di jaxate mhm. moom mi tëgg fayi mbërëm am bésam moom mooy xool ndax day accréditation Dakar Buzz wala Lit TV wala Bantamba wala Jambar TV wala Gaston Production moom mooy choisir su keroogee yaa ngi dégg mais père si di jaxate pourtant samedi lan laa la wax la père tey damaa ñëw mu ajuma parce que nee na ma sama laam ji jàppoo ci yaa ngi dégg ah te yow yaak Lamine samay booy ngeen jàppal bàyyi ma ne ko père maa ngi jéglu mu ne ma noo Babacar xam nga père Sidi moom nit ñi borom baax la mais pourtant bi ma ñëwee dafa bàyyi samay booy dugg ma dugg def sama liggéey yàlla dogal bi may ñibbi ma dajawaat ak moom ci EDK bi billaay wallaay talaay nit ñaa ngi may setaan sama bàmmeel laa toog mu yëkkatiwaat xaalis joxaat ma ne ma nag yow yaak Lamine samay booy ngeen nag journée bii non Babacar taxawoo ci. pourtant bu ko neexoon mu ne ma sama làmb doo ci dugg parce que liggéeyoo ci amoon na droit bi moom moo am droit boobu mais nag bu ñu jaawale lépp maanaam jaxasee lépp daal baaxul seen c'est encore une fois ñoom ñooy saytu làmb ji ñun nag nekkuñu fi pour am ak ñoom ay tiraillement parce que tiraillement amul njariñ mais nag bu ñu gisee lu ñu war a wax te ñu jàpp ne lii lu anormal la dañ koy dénoncer rek pour ñu hmm. xam ne que loolu mënul jàll te warta jàll hmm. parce que encore une fois presse day relayer ay information ñun nekkuñu ci parce que tey bu ñu fi bëggee nekk presse bi làmb ak làmb dafa metti dafa naqaree liggéey. Mm-hmm. da ngay ñëw tey mbër mii ne la xam nga euh, dama ba may bëreeg mbër mi da nga maa xooloon bët bëre wala ba may bëreeg mbër mi nee nga ma mm-hmm. xoole woon wala tiset bii la ki soloon tiset bii ñëw fii moo tax nga daanu nàngam sangam. non dafa bëri ñuy reet a waa de voilà ren te kontaanoo loolu yàlla nañ ci yàlla mos. bu la gisee nii signe la ay bëñ yu weex. waaw te fekk boo xoolee intérieurement. loolu nekku fa gëmunu loolu. loolu naa fekk làmb mu bëri ñuy ree te kontaan làmb mu bëri hypocrisie. yàlla nañ ci yàlla musal comprendre nga. da ngay nekk ak nit ci làmb di ko dawal yërmande sax xam nga li ma la wax ndeke yow moom mu lay gasal ndëgg sërëx te doo ko yëg. doo comprendre nga làmb amatoo sax droit sax tey. toog ci plateau télévision wala jël sa micro reporter sax boo koy def léegi dangay xalaat bu reporté normal sax ñu ne am na foo far mbër daanu nga ne daanu na sax ñu ne lay mbër mi nga faral Pape Mor da dem ba dootoo comprendre Pape Mor Lo Cheikh Tidiane ñaa mhm. Iba Mar xam nga kera Cheikh Tidiane da koo xar géppeen mhm. nii loxo ndongolo dama jiw mhm. ndongolo maa ngi jégalu ndongolo ak Cheikh Tidiane ñaa ndon euh, Cheikh Tidiane da koo xar géppeen daan ko jël bu rëy xam nga yow loolu daf lay yokku émotion ci wax ma reporté wax affaire bi génn yaa ngi dégg parce que action bee rek bi ma génnee doomu Père Birahim bi moo leen andi woon mu dal sama kaw ba xam nga wax wax ni nga waxe nangam nangam nangam man itam man moom Lamine bu micro yi tegee boo bëggee ñu nga rey ma wala ma rey la noo non moobu sax du ma critiquer Modou Anta man boobu moom moom parce que man moom yooyu mooy ah, voilà yooyu moom moom du sama ay mook quoi man mhm. daal li ma xam mooy boo ma bëggee jaay sa bakkan ma jaay la sama bos bakkan bakkan bakkan la rek mhm. waaye nag dinaa la jox cër jox la bi yar mhm. ba mu waxee la wa moo ña mu àndal di ay mbër euh, am na mbër bu nekk nekkoon sàkku xam-xam kii damay fàtte tur bi dem gis naa ko yoof déedéet du cerveau du brise daf mel waaye tur bi laay fàtte. mbër waaw mbër bu nekk foofu. keneen moo ci moo moo moo xaw a kii quoi moo calmé ma jëngu ci bi ci ri 1 bi comme ri 11 ma ne ko bu subaa mu ne ah ma ne ko buñ ko daanaatee dama naan daan nañ ko bu dijju ci kawam. bi Birahim bi mu jotee ci wax ji mag mu yàlla baaxale ngoon yàlla na fi yàgg te wér. barke alxuraan moo yëkkat téléphone am woo ne ma dama dégg da nga doon am ak xale yi ay wax ma ne ko waaw parce que damaa wax mu ne ma fees ma naa ah mu ne ma loolu bu ko daw boo ko dawee doo liggéey. Mhm. defal sa liggéey loo gis wax ko. Mhm. moom ñoom ba ñu ñëwee dégg nañ la ma leen wax ça veut dire que pour war ne moom njabootam. même buñ juumee bu ko déggee bu ñëwee da leen di jubanti kon nag làmb moo mel noonu. la encore une fois mbirum buur nag may sa Ndiaye moom suma waay la. dama koy wax personnel parce que ay nit di ngeen seq dara. non da nga naan da nga naan naan sunu waay la. waaye nit nag moom dëgg moom. waaw dëgg moom bu jotee. waaw waay amul amul yooyu. da ngay wax dëgg te yàlla rek tax. affaire waay moom nañ ko dindi teg ko ne le parce que sa waay sa waay du sa waay sa waay du toroxal waayam. non waa dégg fi may waxee soo déggee ma wax la loolu mooy. xam nga bu ma nee waay xam nga ñun ñu bokk laam yëpp ay nit maanaam dañuy saafonte. waaw may sa dem dama ko nit ku baax ku yaru la may sa njaay dañ ko génne hmm? ci làmb ji danañ ma Bira Sène ko def mu ne ma noo du Bira Sène CNC la ma ne ko non Bira Sène moom mooy personne morale làmb ji moom lañ dénk làmb ji bu ñu fi génnee nit ñu ne CNC la ñun Bira lañ koy jiiñ ma ne ko fii bu diw gi seeree wala ceeb bi seer wala transport bi am problème président Macky Sall lañ koy jiiñ parce que moom la moo laaj ñu jox ko kon lu fi am rek biraa lañ koy jiiñ encore une fois nag loolu la ñu bëgg mu dakk ñun nañu wegante ay bu ñu seqee milieu dañuy respecté wante ku ci nekk jox sa moroom cër yaa ngi dégg buur géwél encore fois kilifa la mag la nekkul xale bu ndaw ñun ñi di wax fi ñëpp buur moo ñu mag yor ñetti soxna yor ay employé di leen liggéeyloo. non yow la mag mais man moom maa ko mag. waaw yow yaa yow yaa ko mag loolu dogal waaw <laughs> yow Baye Balla allah yow mais buur moom maa ko mag moom. <laughs> grand frère am laa. <laughs> mais mais mais mais mais li ma la bëggoon li ma la bëggoon ñëw foofu rek. mooy mooy aw askan Lamine. li olof yi naan boo ci duggee. sargal ci kenn. sargal nga ñëpp. waaye boo ca duggee nag torox toroxal toroxal ka ci genn toroxal nga ñëpp. waaw ñëwal. dafa am loo xam ne olof da koy faral di wax. Hmm. ngeen jégal ma rek ku mel ni perbekaay xam nga Père Bécaye suñu papa la te ku ne xam na ne yàgg na ci làmb. Hmm. dem dafa def sas bu am solo ci 2STV. Hmm. vraiment bokk na ci ñu dekki lancé sax dama naan yu mel nii ah parce que démb. dafa defaat dafa defar wax li nga xam ne ne leen nag am na yoo xam ne dictature la te warta am. dal di dugg man maa woo buur ne ko ndax yaa ngi si seetaan Lady Tigre buur ne ma nu may def ba dugg ma ne ko wool Modou Mbaye mu woote dugg wax tënk père rek convocation bi sax xam nga ñu ngi dégg naan ay convoqué nañ ko mercredi ak yooyu xam nga yooyu père la moo xam mooy na toog bu mu def parce que pour man CNG ku ñuy convoqué pour man mooy ko am licence mbër promoteur ak euh, kële manager ah. ay euh, un reporter mm-hmm. loo koy laaj dara di bokkuma ak faral gis-gis Macky Sall chaque jour nit ne ko cuune nga mënoo doxalam réew kii wax lee kii wax lee wuute bëgg-bëgg yi tax marchandise yi jar hmm. nañu wegantaakoon fois te itam ñu yaatal dënn yi boo nekkee njiit Lamine mooy dëgg gis nga sa kër gee nga ne boo yàlla dénk la soxna ñu nit lu waaye mu indi njaboot teg Lamine xam nga foofu loolu yàlla ngi lay testé ndax di nga ko sant ci njaboot gi wala déet. Mm. sant gi mooy lan mooy nga yaatal sa dënn bi. Mm. waaw non c'est déedéet xam nga sant. yaatal yaatal sa dënn da ngay yaatal sa dënn Lamine. njaboot pour nga boot njaboot da ngay ubbi sa dënn da ngay yaatal sa dënn. yaa ngi dégg parce que kër gi nga yor dafa joxe dépasse yow xam nga ne kër gi bu ñu lekkee maa joxe dépasse waaye da fay gis ku mel ni Mansour mais nañ ma jégal ci tur wi yaa ngi dégg lëj di dugg ci affaire wala nga gis ku mel ni benn jamaïcain mën a tooñ di yàqi te lépp ci njaboot gi la danga nga koy woo nag bu ma tee bu ma tiiree nekk uh, ku uh, ku mag da koy woo ci ruq ne kaay mu ñëw nga yedd ko waxtaan ak moom waaye doone nag taal bi moom bant bu ci saxaar rek moro ci ko sànni bu yàggee taal ba day fey la ngay toog dootul ñor ab xiif na mën na la jaare sax ba fàq damaa ngi jiw noonu la demee ñu dem ci ñu dem ci jili mais Lamine balaa ngay dem ci jili léegi dafa dafa jot sëkk ñu bàyyi mm-hmm. lu waay bëgg a wax reporter mm-hmm. wax ko ko soo ko bëggee wax lu ñaaw wax ko ko te yow ak lu làmb laay wax de ku mu mën a doon ku yëngu ci làmb tey jii ba ñu xam la muy promoteur bi muy CNG de lutte bi muy mbër ku mu mën a doon te yàlla dogal na ni reporter bi moo la dékk micro caméra bi tiim la ba nga doon ki nga doon kooku boo ko respecté wul delloo ko njukkal waroo taxu mukk di ko xas di ko toroxal comme geste boobu nga wax ne as ah, Bécaye def na ko as ah, Bécaye yàgg naa def geste yu mel noonu dafa am fu sori foo xamante ni tey dafa yóbbu làmb mu dafa njëkk ñëw fekk mbër ci biir kër gi muy nelaw mu yee ko mbër mi taxaw ci lavabo bi di sëlmu kër ga doy waar lool mi ne ko loo bëgg a doon mi ne ko roi des arènes laa bëgg a doon mu ànd ak moom topp ko defal ko ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak yoo xamante ni tey bëri na mbër yoo xamante ni tey xam nañ leen ci làmb ak lu bari loo xamante ne nëbb woon na ci làmb tey sénégalais yi xam ko à travers bantam Bantamba muy Bécaye mbay kon kooku boo ko boo ko remercié wul waxoo ko kàddu yu rafet wara ko wax mukk wax ju ñaaw maanaam li ma bëgg a wax mooy ci moom laa ko mën a jaarale pour war la ne tey buur géwal dafa dépassé sax buur géwal comprendre nga ba ñu ba ñu commencé attaquer reporter moo yàgg comprendre nga léegi nag loolu dafa war a jeex ci làmb ñu respecté ki nga xamante ni moom mooy reporter yi maa ngi jégalu bu baax a baax jërëjëf Lamine maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Fadel Babacar Baye Ball Modou Anta di nuyu ñëpp koo xamante ne yaa ngi seetaan à travers Lutte TV jamaïcain uh-huh. sama xarit bi ne France mu ngi Italie instant bi waaw maa ngi koy nuyu aussi euh, Lamine dafa am loo xamante ni uh-huh. faw ñu dellu ci ginnaaw tuuti uh-huh. mooy buur géwal suñu suñu kilifa la suñu lépp la ci liggéey bi mais dafa am lu mu wax Lamine nañ dellu ginnaaw tuuti drapo chef de l'État ak yan condition la presse bi doon dundee nañ dellu ginnaaw tuuti drapo chef de l'État Diourbel yan condition la presse bi doon dundee te pourtant ko loolu saa saa su ne ñu génn wax ko mais ni ñu koy waxee dañ koy wax ci dal dañ koy wax ci teey dañ koy wax ci respect parce que ñi ne CNG bi suñuy bàyyi ñoo fa nekk mhm. mais nag nit ki munoo yow jiite mbooloo ba pare nekk ku ci nekk yaa koy sàqal li muy wax wala ni muy doxalee li ko waral mooy buur dafa wax ni CNG bi dañu tële dëgg la dañu tële parce que mënuñu la dénk ay mbir nga war ko doxal jiite ay mbooloo mu bari xoolal imagine toi milieu bu mel ni CNG de lutte bi ñaata bureau moo fa am ñaari bureau boo ñëwee di wut licence fee nga jëm boo ñëwee nekk mbër fii nga jëm ñaari nit ñoo ko yor mbir mbir mi mbiru CNG bi fi mu toll nii ñi fa nekk xoolal arbitre yi li ñuy dund doon nañ fi kaas di wax ni amuñu assurance amuñu dara loo xamante ne dañ koy dindi di grève ci loo xamante ne suñu papa Alioune moo fi nekkoon Bira bi mu ñëwee lu mu wax presse bi ñooy ñooy sama euh, sama sama samay partenaire ñëw leen ñu ànd liggéey mais loolu yëpp fi mu toll ni dañ ko jëlee fële lu dul di ñoom bokk nañ ci ñi xeex promoteurs yi di ñu wutal barrière di ñu fa dugal ñu jékki-jékki créer leneen nañ nañ leen arriéraat ci ginnaaw ñu waaj ne dañu yóbbu ci kaw tribune bi dem nañ ba léegi ñoom ñu ngi ñuy sàkkal ban presse mooy dugg si ci làmb ak ban moo du dugg si làmb ñoom dañu war a xam ne mbëri la ñu yor ak promoteur promoteur yi nga xamante ni tey dañoo tëgg làmb di ñëw ci làmb la ñu bokk ñooñu ay promoteuru làmb lañ CNG bi mun nañ leen a gérer mbëru làmb yi aussi noonu ménageurs yi noonu mais presse en ligne biy ñëw di def seen i liggéey gis CNG bi li ñu war a def ci làmb ji gis ni lii kat def dañ ko waroon def defuñu ko dagg mbër xaalis boo laajtee xaalis bi nga dagg mbër yi fan la jëm ñu ne lu ciy soyoon ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi ji mhm. ñun ci gétt gi lañu bokk dañoo war a wax lan moo tax saa su ne rek ñi nga xamante ni dañuy jiite mën nañoo ànd ak kuy raam mhm. mun nañoo ànd ak kuy dox waaye mënuñoo ànd ak ku yor moto wala oto parce que saa yoo ko yoree rek wane ni man maa jiite fii déedéet du noonu ñu ngi jiite ay nit lañ da nga leen war a respect mm-hmm. respect bi ñu la jox da ñu ko war a delloo président Bira Sène fépp ku nekk ci làmb fu ñu ko gisee dañ koy jox ñaari loxo mm-hmm. papa nuyu ko saafan amul kenn ku mën a seedal ci làmb ne diw mii ku réew la diw mii ku xamadi la parce que ñëpp respect lañ ko jox parce que mm. respect boobu nag daf ñu ko war a delloo mm. mais lu mu ñu ko mën a delloo delloo nangu na ko keroog bi mu toroxalee buur géwal mm-hmm. te bi muy toroxal buur géwal waroon nañu ko waroon na ko toroxalee suñu kanam mm-hmm. mu xam ni ñun ñëpp mbooloo mooy doole parce que maa ngi dégg ñu naan li tax bi ñuy toroxalee buur gars yi boycotté wuñu wala defuñu ah, déedéet parce que yëguñu ko ah, mbir mi bu ñu ko yëgoon dañuy xam ni foofu buur géwal du génn làmb ji ndax ki koy génnee làmb ji moom moo làmb ji dañ la koo dénk yow ki la ko dénk sax moo lay woo ne la defal lii defal lee yow am na lu la doy sëkk parce que écran géant bi nekk ci làmb ji nit moo taxaw ci pra euh, ci télé Modou mbay ne écran bi dañ ko war a taal kaas ci wax ci lim ci war a wax xëy bis jot ñu ñëw taal écran géant bi est-ce que noonu la war a demee hmm. am làmb yoo xamante ne dañuy sàkk bu ñu ci war a taal ak bu ñu ci warta taal am ay signature contrat yoo xamante ne dañuy dem ba combat bi des deux jours wala trois jours nga gàntal ko euh, Fadal nangul ko Babacar léegi nga ne yow nga jiite làmb kenn du ko wax a ah, ñun nag wax dëgg xamatuñu ci ban làmb la ñu nekk xamatuñu ci ban dëkk la ñu nekk président de la république na jor na mu jël ay mesure am mooy ku ko wax wax bu ñaaw mu génnee la tëmbal la Burkina wala wala. Ah, ah, jërëjëf si loolu la. jërëjëf am na solo. bëgg naa ci yow waaye mercredi moom doo ñëw làmb jo kontaan naa ci yéen la ma waxoon dem rek loolu laay waxaat wax ji daal mu gudd mu gàtt mooy CNG lu ñu def du dëgg. du yoon jaay doole la wasalaam. ETDR établissement Touba Darou Rahman di entreprise bu mag bu yëngu ci wàllu BTP travaux de bâtiment.